guddi si ci nar a gën a fës bokk na ci li ci nar a gën a fës foofee ca ndar gis nañ ne itam liggéeykatu compagnie sucrière sénégalaise niki tey ji daal di nañ wàcc ci biir xàll ya ngir rek daal di méttitlu la nga xamante ne moom mooy déclaration euh, d'importation di dipa yi ñoom nag ci seen wàllu bopp gis nañ ne loolee dafa bëri suukar sa nga xamante ne dañ ko jaarale ci wàllu bu fraude ba tax rek lu toll ci juróom-ñetti junniy liggéeykat boo mooy loolee la nga xamante ne moom mooy seen liggéey lu ñuy sàkku mooy ñu daal di leen andi wàllub yoon ci fànn boobu leen ndaxte nag boo moytul seen liggéey dina nax saay dinañ ci ñëw ci yattalu xibaar yi doxu ñaxtu beneen bi amat fii niki tey ji ci ndakaaru loolee nag ànd ko tekk tekkaaral ngir rek daal di méttitlu loraange gi nga xamante ne ñoo ngi koy nemmeeku ci ñuy loru ci wàllub mbëkk mi noone dinañ ci ñëw ànd ceeg suñu ndaw la fa di Babacar Samb ak itam réaction yi nga xamante ne jot na ko fa taataan niki bésu tey ji la ñu doon màggal lépp lu jëm ci wàllub napp ña nga xamante ne ñoom ñoo ca yëngu foofee ca mbuur nag la ñuy sàkku bokk na ci ñu daal di fësal bépp bato bi nga xamante ne dafa ñëw ngir rek daal di napp ci suñu waax yi loolu itam ñu daal di gis ne bëri na ci ay jafe-jafe ak itam la nga xamante ne moom moo jëm ci seen wàllu wàllub application code de la pêche ak yeneen ya nga xamante ne gis nañ ne nag faaw ñu daal di ci indi saafara. loole dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi ci booba jamono artisan yu nekk foofee ca Kaolack ñoom itam la ñoo sàkku bokk na ci. ndampaay gi ñu jàpp ne nag dañ leen ko war a jox rawatina ci fond force Covid 19 lu toll ci ñeent fukki corps de métier ñoo nga fa gis nañ ne nag ñëpp la ñu daal di jox ba mu des ñoom boo mooy itam ci kàddu yu ñu yëkkati nee nañ nag dinañ dem ci mbëkk mi loole dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi li ni mel biñ ci boole yeneen xeetu xibaar wax sa xalaat tey tënku leen ci ponk lu ñuy sàkku rek mooy na rafet ngeen bañ fi fay wala boog ngeen leble fi bor Alioune Badara Socé moo féete ci xarala gi. Birama leen gërëm leen di leen tatagan ci teelu bi ngeen di teelu seen rajo Sud FM 98.5 ak mboolem suñu bànqaas suñu lëkkaloo tey nekk gaaw ñaar fukki fan ak benn ci weeru novembre atum ñaari junni ak ñaar fukk xibaar yi nuñ ko doore euh, nuñ leen ko waxee woon ci ndorteel ñu doore ko foofee ca Ndar. liggéeykatu compagnie sucrière sénégalaise ñoom nag niki tey jii la ñu daal di dox ànd ak askan wa yeewa foofee ca Richard Toll ak la ko wër la ñuy mettlu bokk na ci joxe gi ñuy joxe li ñu duppee DIPA maanaam kayit ba nga xamante ne mën na tax nga daal di jëlee suukar ca biti réew ñoom nag gis nañ ne DIPA yooyu nag lu ci bëri ñoom ñooy indi suukar su jaarut yoon fii ci mim réew ba tax rek loole day tax lii lee di compagnie sucrière sénégalaise daal di amab euh, lu mu jot a defar ci suukar du ko mun a jaay liggéeykat yooyu nag lu ñuy sàkku ñu daal di amab yoon ci fànn boobule ndaxte gis nañ ne nag lu ëpp juróom-ñetti junniy liggéey dinañ ko fa yàq Yves Tendeng bu laal sama suukar bëgguñu dara ci suukar si ñu jéggaani waaye nañu sàmm suñuy xëy lii mooy message yi nga xamee ni feeñ na ci pancarte ak i banderole yi nga xamee ni liggéeykatu CSS di compagnie sucrière sénégalaise yoroon nañ ko ci seeni maaj bi ñu doon amal ci samedi bi ngir nakarlu séddale gi ñuy séddale ci anam yu jaadowul lii di dipaay yi kii di amari Diouf mi nga xamee ni mooy secrétaire général bu kuréelu CNTS ci biir CSS moo yor seeni kàddu Sénégal dafa dépasse le Sénégal de la sous-région moo c'est une entreprise qui nous est chère qui nous est très chère parce que c'est là où nous gagnons notre pain dama ne pain boobu nag gars yi dañ ko bëgg a dindi ci suñu jëmin moom wax na pour ñu dindi ko suñu jëmin il faut muy ay liggéeykat yu nga xame ne nii xamle nañu ne duñu dellu gannaaw ci xeex bi ñuy xeex te ñu ànd ceeg ñi nga xam ne nii ñooy askan Richard Toll ak i diwaanam ñoom li ñu bëgg a tey jilee moo di yoon def liggéeyam ci fraude bi ñu nemmeeku ci séddale di payi di wax ne liggéey bi nag mi ngi door a commencé. ça c'est l'acte deux du plan d'action. kii di Louis Lamotte mi nga xam ne nii moo jiite ressources humaines ci biir kuréelu CSS moom mu daal ci yokk di dànkaaf rek nguuru Sénégal. de la république santaane wu ko lii xew président daf leen yàq joxe leen nangam ñu dem joxe leneen li tegu ci nangam boobu nag dañ ko jël jaay ko dugal seen poche.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 Sud FM. Yves Tendeng noonee la ñuy jaar ñëw fii ci Ndakaaru jaare ko ci Petite Côte bi àddu ci mbirum mbëkk mi niki tey ji am nañ doxu ñaxtu ba nga xamante ne nag dañ ko daal di jaarale ci tekk tekkaaral ngir rekk daal di méttitlu ñi nga xamante ne jot nañu ñàkk seen bakkan ci fànn boobule ñoom nag la ñu sàkku bokk na ci euh, nguurub Sénégal daal di gindi askan wi rawatina ña fa jot a faatu ak itam koppar ya nga xamante ne. daal di nañ ko ci dugal ngir rek daal di wàllu gune yooyu Babacar Samb. di doxu pësëngéem nga nga xamante ni collectif 480 ak ñenn ci askan bi daal di nañ koy amal ca place de l'obélisque jëm ci rond point RTS ngir fàttaliku waaye itam na xarlu génn ko àdduna ndaw ñi nga xamante ni daal di nañu ñàkk seen ab bakken ci géej gi ci Barça wala Barsax. mu doon jour bu ama am solo ci taarixu Sénégal. yi ay jéego itam ñu daal di teg ngir biral jooy xol ga nga xamante ne askanu fa Sénégal mu ngi ko dëkkee jamono ji. da gis ay góoru yàlla yoo xam ne ñu ngi nekk si tali bi si naaj bu tàng bi di xooslu yenu ay bagages si naaj bu tàng bi di daw si diggante oto yi doxal si mbedd yi nga xool nit ñi. nga xool nu ñuy sonnee xoolal nu ñuy solo xoolal seen dàll yi xoolal nu ñuy xosloo pour am lu ñuy añee te ñun loolu waruñu ko woon dund nga gis sa waajur feebar nekk hôpital doo doo doo am loo koy jëndalee ordonnance lan moo gën a métti loolu. waaye di ñaawlu itam tekk tekkaaral gi nga xamante ni manifestant yi nee nañ daal nguur gi daal na koy wane. ci jéya ga nga xamante ni mbëkk mile daal dina koy indi fii ci réewum Sénégal te li ni mel deful lu dul wane lajj ga nga xamante ni nguur Sénégal daal dina koy lajj. nous sommes fas à un drame national te kenn bëggu ci wax ñu nar wax nañu wax te wax wax ji te bañ wax ji. ndax boobu ba tey gisuñu benn. responsabilité ba mu te état bi jël na ko ngir mën a def benn dëy boo xamante ni honoré mémoire u xale yooyu. tey jii seen politique ci wàllum emploi ci wàllum xëyu ndaw yi loolu yëpp dafa échec. ñu teg ci di xamle nii. ñuy daal di faatu ci Barça wala Barsaax jamono ji dafa daal di doy ba tax na collectif 480 di sàkku ci nguur gi mu daal di jël ay responsabilité am dakkal bile phénomène nga xamante ni def lu dul tàbbil ndaw ñi ci géeju lorange dox boobee nag Barthélemy Dias mu ngi woon foofee moom la mu joxuñ baaraamu tuuma doxalin wu bon ci wàllu politik bi nga xamante ne kii di président Macky Sall daal dina ko def ci fànn boobule di sàkku itam ñu daal di ko gindi ci koppar gi nga xamante ne Union européenne daal dina leen ko jox ngir rek ñu daal di xeex lépp lu jëm ci wàllu tukki gu jaarut yoon googee Barthélemy Dias ñu teewlu ko. nañu président Macky Sall wax. 39 milliards ba ko Union européenne jox. pour lutter contre l'immigration clandestine. lan la fas yéene defar boobu. wala fan nga dugal xaalis boobu parce que loolu mooy wax ci. c'est ce qui se passe maa ngi dégg un collectif bu ñuy woowee 480. 480 yooyu mooy lu ñuy ñàkk ci ay doomu aadama semaine bu nekk. kon nañu wax wax ci et j'invite une certaine presse à être un peu plus responsable wax leen ci waxu immigration clandestine bi te ngeen bàyyi dañu bëgg a nelawal avec des deals et des dealers qui nous intéressent pas parce que nous perdons Chaque mois, là, l'équivalent du bateau Le Jola. Les 480 morts ont été enregistrés en une semaine. Nous sommes face à un drame national. Nous nañu wax te wax wax ji te bañ a raay wax ji bàyyi xale yu wax xale yi defuñu dara juddoo ci réew dëkk ci réew màgge ci réew ñoo la doo fa tekki kooku neexul wax ji mooy lan nañu wax avec ce gouvernement te wax leen seen bopp ils ne peuvent pas justifier la signature d'un contrat immoral comme ce qu'ils viennent de signer avec l'Union européenne pour 10 ans pour un montant de 8 milliards d'euros. Ce n'est plus normal que des pêcheurs aujourd'hui di dem ci géej gi mënuñu fa am jën lu ci lu des mooy lan mooy jël xale yu bëgg a dem bitim réew et les convoyer loolu mooy dëgg bi a qui la faute qui a vendu la mer qui a vendu le poisson kon wax ji mooy lan mooy ndeyu mbill bi lu njëkk mooy jaak mooy président Macky Sall kon képp kuy kilifa diine ñu ngi lay ñaan ci yar ak teggin ci jàmm ak salaam képp kuy kilifa aada képp ku fi yàlla may baat na ngeen wax Macky Sall wax ji wax ji mooy lan na bàyyee géej bu muy jaay wax ji mooy lan mooy 39 milliards ba ko tubaab yi jox na wax fu mu ko dugal wax ji mooy lan mooy mënuñu nekk ci beneen dëkk ñuy wax waxu pétrole waxu gaz il n'y aucun transfert de technologie dans ce pays et il n'y a aucune usine de transformation dans ce pays et on demande à ces jeunes de rester au Sénégal. Ça, ce discours n'est pas responsable. On reste dans un pays dans lequel on peut vivre. On ne peut pas rester dans un pays dans lequel le seul avenir qu'on a, c'est de mourir la bouche ouverte. keneen ka ca daal di yëkkati kàddu di Guy Marius Sagna lu mu sàkku ci président Macky Sall moom itam mu daal di soppeewu doxalin ci wàllu politique euh, daal di na yëkkati yeneen kàddu jàpp na nag lu jiig njàkk société sénégalaise moo ji moo di njàkk ndaxte gis nañu nag la ca ëpp ñoom ñooy xirtal gune yi ñu daal di uti biti réew Guy Marius Sagna ñu teewlu ko ci micro Babacar Samb. askanu Sénégal bii jël gaal yi dafay topp jën yi nga xam ne moom lañu ñu fii te muy dem Union askan wi nga xam ne mooy jël gaal gi dafay topp les flux financiers illicites yi nga xam ne ñooy jóge fii Afrique jóge Sénégal di dem dans les comptes en banque suisse askan yi nga xam ne ñooy jël gaal yi dañuy topp l'argent volé par les politiciens de ce pays et de ce continent et qui loge dans les banques suisses dans les banques françaises dans les banques états-uniennes askan bi nga xam ne mu ngi jël gaal gi dafay topp en fait wurus bi nga xam ne mu ngi ci Sénégal ñu ne téeméer boo jël juróom-ñeent fukki mu ngi dem bitim réew dafay topp zircon bi nga xam ne ñu ngi koy jëlee fii Sénégal téeméer boo jël quatre vingt pour cent yi di dem bitim réew askan bii di jël gaal gi day jël gaal gi pour topp bénéfice yi nga xam ne entreprise yi ak parfois des patrons sénégalais ñu koy def ci ndodd askanu Sénégal ñu koy def ci liggéey liggéeykatu Sénégal bénéfice yooyu la ñuy topp parce que ces bénéfices là sont logés dans des comptes en banque en Italie en Espagne ak feneen waaye itam politiciens sénégalais yi nga xam ne dañuy jël seen genou di ko teg ci loosu askanu Sénégal nooteel googu moo tas yaakaaru askanu Sénégal nooteel googu moo tas yaakaaru ndawu Sénégal moo tas yaakaaru béykatu Sénégal moo tas yaakaaru liggéeykatu Sénégal la plus grande responsabilité c'est la responsabilité de nos autorités mbokk yi nañu interpeller itam suñuy famille ñuy def sur les membres de nos familles dans nos familles lan moo fa am ku fa am xaalis moom la ñuy jox gëdd boo amul xëy boo amul gont kenn du la faale ci sa biir kër ci sa biir njaboot ça également c'est de la pression voilà comment on assassine socialement le peuple sénégalais avant de l'assassiner physiquement dans la mer Méditerranée dans l'océan Atlantique et dans le désert du Sahara donc ñun itam foog ñu xoolaat suñu jikko foog ñu wax itam ak ñenn ci suñu kilifa diine chrétien yi ak ñenn ci suñu kilifa diine musulman yi ak ñenn ci suñu kilifa aada yi ndaxte ñun taalibe yi gis nañ yenn saa yi nu ñuy doxalee ak ñun taalibe bu gën a duuf enveloppe moom la ñuy fulal talibé boo xam ne amul tous kenn du la fay dal ça également c'est des pressions psychologiques yu ñuy def ci kaw askanu Sénégal et donc faut pas s'étonner à ce que les gens veuillent aller en Italie en Espagne nous sommes complices nous sommes tous responsables il faut qu'on l'honnêteté de le dire niki bésu tey jii lañu doon màggal àdduna wërngal këpp lépp lu jëm ci wàllu napp ña yi daal di yëngu foofee ca Mbuur lañu sàkku bokk na ci ñu daal di fësal kayit ba nga xamante ne moom moo daal di bind bépp bato bi nga xamante ne day ñëw ngir daal di napp ci waaxu Sénégal yi loole itam gis nañ ne jën laa ngay gën di ñàkk ba tax rek ñu daal di fexe ñu doxal la nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu code de la pêche ngir rek lépp daal di am ci doxalin wu sell. ñu dem ba Mbour fekk fa Moustapha Sall. bis bin jagleel wàllu napp gi tey jilee ñu ngi ko amal ci jamono ju nga xamante ne daal jafe-jafe yi bari na lool rawatina ñàkkum jën bi nga xamante ne nemmeeku nañu ko loolu moo tax ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy nappkat yooyu le di laaj nguur gi mu fësal bato yi nga xamante ne ñoom lañ jox ay licence ñu war a napp ci waaxu Sénégal. man Samba Gueye laa tudd. maay président CONIPAS. CONIPAS mooy interprofession bi. licence yooyu mooy licence yi ñu wax ñu ñaata bato la. ak fan la nappee fi bu ñu nappee ba pare fan lañ ko jëmee. donc yooyu aussi moom lañ doon laaj mais boo ba léegi yàgg na lool te fi mu nekk kenn mën wax dara dañ la wax rek ni kenn deful kenn signéwul licence kenn deful nangam nangam loolu aussi leeral na ci bu baax a baax. ngir napp gu mucc ayib lépp daal di suqaliku ba ñu mën a teg lépp ci yoon ñii nga xamante ñoom ñëpp ci wàll wi la ñuy yëngu di napp nee na loolu li ko mën a indi daal mooy ñu dëggal code de la pêche bi am ci mim réew. am na code la pêche décret yi yëpp am nañ ko lépp lu ñuy aaye ak lépp lu ñu bëgg di ko doxal mu baax am na mais c'est l'applicabilité applicabilité bi nga xam moo war a am mu delloosi ko pour ñu jëfee ko moo moo moo moo moo amul léegi nag loolu bu fekkee amul jafe-jafe day am kon donc loolu bu ñu bëggee mu dox il faut que ñuy daje ñuy daje di def ay penc yu ndaw wàcce ci suuf di waxtaan ak nappkat yi di wàcce ci suuf di waxtaan ak transformatrices yi ak mareyeurs ba kenn ku nekk xam lan moo nekk ci décret yooyu parce que loolu li ci nekk yëpp kenn jëfewu ko te am na ci yoo xam ni arrêté rek lañ ko def nii pour gàllankoor nit ñi te loolu war nañ ko mën a dindi pour pour ñu mën a dem def li ñu def ñi nga xamante ni ñooy yëngu ci wàllu wi defuñu benn xumbuteef ci bis bi ne leen jagleel ndax daal neeñu dañuy fàttaliku du ñaanal ndaw ñi nga xamante ni ñoo des ci géej gi lu toll ci ay téeméeri téeméeri ndaw nappkat yi des ci géej gi demoon mbëkk ma ñooñu ñoo tax defuñu benn xumbeel Moustapha Sall Mbour rajo Sud FM bàyyi ko Mbuur dem ba ca Saalum foofee ca Kaolack artisan ya fa daal di nekk tailleur yi menuisier yi mécanicien ñoom nëpp daal di booloo ci coopérative régional bu ñu duppee Saalum Voix ñoom nag dañoo mer ba fippu jëmale ko ci nguurub Sénégal ak seen jëwriñ lu ñu doon xaar bokk na ci koppar gi nga xamante ne ñoo ngi ko doon am yaakaar ci wàllu mbas mi ngir ñu daal di leen ko dimbalee ba fi mu ne ni kenn ci ñoom jotul Pikini ba tax rek ñu daal di ci retet ñu teewlu kenn fa ñoom di El Hadj Serigne Lom moo nekk seen njiit ci micro Mamadou Camara coopérative artisan Kaolack yëpp téyeer yi menuisier métallique ak menuisier bois yi ak mécanicien waaye dañu bëgg wax lancer appel bi président de la République direct mu dégg ñu parce que bi mbas mi dikkee ñu ne dafa impacté secteur yëpp dafa laal secteur yëpp ku ne xam ne ne artisan dencul matériel bu muy denc suba pour mën a liggéey suba li amoon mu néew mu bare mu waroon koo fay location ñi war cee fay courant état du Sénégal nekkoon mm. nekk nañ ba mënatuñoo dégg bu dul loolu ñu nga alerte gouverneur ak ñëpp xam ne danañu gis bu soob yàlla balaa dara mm. parce que mënatuñoo muñ loolu suñu boolu muñu kaay fees na mm-hmm. sonn nañ tàyyi nañ ci yi def nii nañ ñu létti wala ñu firiñu kenn mënul dem ci réew sans artisan artisan ñoo defar lépp ba nit ñi mën a am dëkkuwaay bu dal pale yeeg bureau yeeg yëpp artisan ñoo ko defar ñu fàtte ñu lan fa ko teg 15 pour cent mobile national ñu waxoon léegi gisuñu ko dañu bëgg loolu ah ah. dañu waxoon kenn ku jox 150 000 francs hmm. pour dimbalee la ko ci mbas mi loolu lépp waxoon hmm. biñ ñu ko waxee itam ñu jaar ci euh, ay fiches de recensement jaar ci chambre de métier yëpp artisan yëpp dem góorgóorlu bindu ba pare bi ñu bindoo daf ñoo jaral ñun lañ waroon a location ñu denc ko moo tax ñu bëri ñu jaay nañ seen ay machine ñii jaay seen place dugg ci gaal dem kenn dajalewul dara looy duggee ci ci gaal koo fi gis mu dem ci gaal rek dafa jaay place am wala mu jaay ay matériel am wax président nag ne ko réew doo privilégié borom daraja yi bàyyi borom xam-xam réew borom xam-xam ay jiitu te artisan ñooy borom xam-xam loolu na dak eh, nee jox nañ chauffeur yi nee nañ jox nañ mbër lamb jox nañ fecckat yi lan moo tax joxuñu borom eh, artisan yi fan lañ teg loolu waaye sonn nañ trop ci loolu waay ca Saalum boobee la ñuy des forage bi amoon eh, ndoxu xorom bi foofee ca Sibassor dinañ ko yeesalaat loole lu toll ci juróom-ñaar fukk jàpp juróom-ñett fukki million lañ ci fas yéene def liggéey gi nag dina door fii léeg njeexitatu njeexitalu at gile ay jàngat lu am solo ci wàllum suuf ak it fi ñu koy daal di taxawale ñoo ngi fa daal di amal ki ko xamle ni ki tey jii di directeur général bu OFOR di seeni ndaw ñu teewlu ko ci micro du kamara forage bi am na plus de quarante ans d'âge ouvrage nag bu àggee foofu même bu taxawuloon tey jii sax war nga xalaat fi nekk nii pour renouveler forage bi moom danañ ko renouveler te yàlla def na am nañ financement bi nga xam ne bii moo nekkoon li waroon a mën gën a jafe am nañ ko pour mën a procéder au renouvellement procédure consultation bi ñu ngi ci te yaakaar nañ ne fii ak fin d'année danañ mën a dérouler le processus mën a wax les population ne leen entreprise bi moom mooy ñëw gasi forage état du Sénégal benn moment population yi manqué Sénégal nag tey jii ci wàllu hydraulique rurale def na ci ay jéego yu am solo. président Macky Sall di ñëw en 2012. boo doon xool limu forage yi ça tournait autour de mille trois cent mille quatre cent. mais tey jii ñu ngi ci plus de deux mille forages. mu nekk jéego bu am solo. tey jii moo tax taux bi atteindre quatre vingt boo demee également en milieu urbain ay jéego yu am solo si ñu ko fi def. mais teewul toujours mu am ay rëq-rëq. c'est parce que doyul ndox moo mel noonu. ñamul faut que ñu continuer di yuuxu ne amuñ pour que ñu mën leen a mais ñooñu dégg nañ leen chercher donc ay financement te yaakaar nañ ne fii tout le Sénégal fépp foo ci dem danañ am ndox boo xoolee ci lim boobu les 2200 et quelques parce que situation la boo xam ne bi chaque semaine ñu def ko am na ci 89 forages xam ne ils sont à l'arrêt bon ay problème mu panneau la ou bien panneau groupe électrogène ñeneen ñi boo jëlee ay problème ouvrage la comme ni ko Sibassor amee mais loolu état bi aussi toogul à chaque fois ñu ngi jënd ay pompes ak ay groupes di koy jox les nañ ko te bala mu yàgg xëy fii ak fin mois ou bien début décembre danañ am pompe ya am groupe yi mën leen ko jox ñeneen ñi nga xam ne yii dañ ko war a fore am na programme boo xam ne bii même déjà commencé na lépp lu nekk ouvrage mu ngi fonctionné te lim bi nga xam ne bi moom moo nekk à l'arrêt par rapport ak liy dox wax dëgg yàlla nekk na pourcentage boo xam ne bii c'est acceptable parce que au moins ëpp na 95 voire 96 xibaaru bitim réew xibaaru biti réew di wàccaayu élection yi foofee ca Burkina Faso ay waxtu rek des ndekki ëllëg lañ ko fas yéene amal ñoo ngi yóbbu li la di urne yi foofee ci bureau de vote yuñ ko war a amal mairie bu arrondissement 4 nag bu nekk ca Ouagadougou lu toll ci juróom-benn téeméer ak ñeent fukk ak ñaari urne lañ fa daal di yóbbu euh, ngir rek ñooñee gën a mën a woote di ngeen ko teewlu ci suñu xibaaru français suñu ndaw la fa. di Mathieu Somda foofee la ñuy des ba léegi ci Burkina Faso gis nañ ne itam lu toll ci ñaar fukki junni ak benn junni yu toftal juróom-ñett fukk ak juróom-ñaari bureau de vote lañ fa daal di nemmeeku ñoo ngi fay xaarandi itam lu toll ci juróom million ngi doomi aadama yu taftal ñeenti téeméeri junni ak juróom-benn fukk ak juróom-ñaar nga xamante ne ñoom ñoo fa war a wote ci biir réew ma gis nañ ne itam yenn diiwaan yi ñàkkum kaaraange moom moo fa nekk toll na ci fukki commune ak juróom ci ñetti téeméer ak juróom fukk ak benn commune ya nga xamante ne ñoom ñoo fa daal di nekk lu toll itam ci dëkk-dëkkaan ñeenti juróom-ñeenti junni yu juróom-ñeenti ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk juróom-ñeent dëkk dëkkaan foofee ca Burkina Faso foofu itam kenn du fa daal di woote lépp di ngeen ko teewlu suñu ndaw la ñu fa teewal di Mathieu Somda ca Burkina Faso. Le Mali, la Mauritanie, le Sénégal et la Guinée mènent ensemble dans le cadre de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal des programmes pour maîtriser le fleuve et satisfaire bien des besoins indispensables à leur développement. Grâce à ces infrastructures qui permettent de mobiliser l'eau, l'OMVS contribue à l'alimentation en eau potable des populations, au développement de l'agriculture irriguée à la sécurité alimentaire et à la fourniture d'une énergie propre et bon marché, et bien plus encore. Ces actions ont des retombées concrètes dans notre vie quotidienne. L'OMVS, un outil d'intégration, un levier de croissance, vous offre Wax sa xalaat salaamaaleykum. allo. salaamaaleykum. ñu ngi lay ziar. waaw. waaw maa ngi lay ziar Adama Dieng. delloo ziar Adama waa. ngi lay nuyu baax di la ñaanal jàmm. te di ko la koy delloo waaw. ñaan sama kàddu fekk ñëpp ci jàmm. waaw. nuyu sama mbokk yi fa joxe ak suñu mën a nekk rek di déglu sama kàddu. Mhm. tey de bëgg naa ñëw ci ñaari ponk rek comme ci antenne bi. Mhm. saa bu jotee rek sama xel dafa teeru Kajoor <coughs> di fàttali bu baax a baax rek président Macky Sall Kajoor sax lu jiitu 1549 ba nëgëni Kajoor mi ngi existé te ba nii may waxee yow ba nëgëni am na xamante ni mosu ñoo am courant dëkk mel ni Dalax dëkk bu mel ni Mbambatal Kër Thiar Kër Daaw Gaye dëkk yu bëree bëri yoo xamante ni nii a ba nëgëni mën a guñu bénéficié ci courant ak li jiitu yoon bi nga xamante ni dafa jógee ngaay jëm si Touba yoon boobu di cent cinquante six yoon boobu ba nëgëni mu ko takk wees na ko kon ñu ngi ñaan am solo yooyu nga xamante ni ñu fexe ba yoon boobu ndax gis nañ le maire Moustapha Sy le maire ñaar toujours ngi ciy wax rek ngir bëgg ñu defaraat yoon boobu moom it mu nekk maire boo xamante ni vraiment su njiitu réew mi li ñu soxla ci am maire lépp ngi ci moom Sénégal yi ba dañuy wax ni bokk na ci maire bi Sénégal kon yaakaar naa ni nit ñu mel noonu nag nit ñu am valeur yi ñooñu lañu war a jiital bu loolu jàllee maa ngi fàttali président Macky Sall artisans yi surtout mangaa yi ndax it boo ci ñi yaakaar naa ay artisans yi ci la bokk na ci kaw mangaa yi ñu bëree bëri seen liggéey dafa xaw a yàq ci liggéey dàll yi ba financement yi nga xamante euh, appui yi nga xamante ni moom lañ leen doon déggoo kër yox ba na gën a jotaguñ kon ñi ngi fàttali seen ministre tutelle yaakaar naa moom léegi moom moo yore dossier bu mel noonu na financement yi nga xamante ni appui yi nga xamante koo jox artisans yi ndax président Macky Sall bu sañoon benn secteur du am benn jafe-jafe bu loolu jàllee lak yow amoon ci Touba wax dëgg yàlla ñu ngi koy mettitlu te di ñaan yàlla defal leen euh, lu ko gën di ñaan Sénégal yëpp ñu jàpp leen di rafetlu nag cinquante millions yi nga xamante ni président Macky Sall indi na ko jërëjëf mm-hmm. jërëjëf Adama Dieng ca Touba ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98 asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. Alaaji. Alaaji Birame Ndiaye. waaw. alaaji saasi mbug dem moo lay woo saasi kenn da ci xombal gaar alaaji saasi ñoo ngi lay nuyu di nuyu sa technicien ak Birama di kontaan coow bu baax Birama hmm, jërëjëf ñu de kontaan nañ coow bu baax hmm. sa yar sa tegin ak jox ak bi ni ko war doxale yaa ngi koy doxale noonu yemale ñëpp su dañ njaaxaa naayi rajo bi nag moom Birama ku fi nekk hmm. di nga dégg waaye dooma yàlla la nga dégg mu bañ a nekk ak am yow dañ laay kontaan nañ coow bu baax ak sa morom ne ci rajo bi lii rajo rajo de référence la ñi fi nekk moom xam nañ leen kuy wut professionnel bi ñëwul Sud FM bañ leen ko ni bañ la rajo des grands événements la rajo qui informe juste et vrai ci moom dëgg rek moo fi am caaxaan fi ku am say caaxaan nag bëgg fi indee yow yaa koy wéete mais ci moom dëgg rek moo fi am ci nuyu nag Alaaji Góor Njaay baax a baax ak sama jigéen ba ay Sori Dieng ak Moustapha ci États-Unis ñu ne la ñu man de man de citoyen la dëkk ci réew mi am nag njiit bu ñuy wax président Macky Sall muy suñu njiitum réew mu yor suñu gaal di ko dawal ñu war a ànd moom joow loolu ma booleeg moom may joow ndax bu gaal gi muccee ma mucc man lii la lii lii kese la ñun lu nekk dëgg nañ ci rajo Jaama naan dana yor biberon ak man yoru biberon kenn dana daan sama dara yor sama ñax man ñu leen wax nag daaw sen waxi daaw ak waxi ak tey na nit ñi wax dama bëgg nit ñi déglu rajo bi ñu doon daaw am na ñoo wax ay am ñu yor yor ay kàddu yu daaw kenn kàddu yi te daaw ak ren méngoo méngoowul de ñu ngi yoruñu biberon bu ñu yoree biberon am na ñoo xam ne yor nañu bërigo soow ak mburu wasalaam jërëjëf. jërëjëf El Hadj Sassy Mboup ca Xombol Gaar ñu daal di ko jaajëfal jël keneen ci ligne bi asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. El Hadj Birahim Ndiaye wala Birahim Diop. El Hadj Yankoba. waa Ndiakhate naa caa yaay rek moo lay ziar. Mm-hmm, delloo ziar. di siyaar sa technicien boobu Pape Laye la wala soose Socé. Socé maa ngi koy siyaar di siyaar Pape Laye ñoom ñëpp daal. technicien maa ngi leen di siyaar. Mhm. di siyaar Père Mbaxane Gomis syndicaliste nekk fële ci Mbour. ku bari xam-xam te ñàkk caaxaan. la ca dolliku rek di dénk askan li ma leen daan dénk nañu bàyyi yee fitna ci wax nañu bàyyi yee fitna ci fitna xajul ci kenn. nguur kenn du xeex ak moom wala ngay bëgg a xeex moom wala la preuve. opposition bi nag fu ne la ñuy waxee fu ne la ñuy duggee fu ne la ñuy génne la ma waxoon daaw ak daaw jéeg nee naa Sénégalais la majeure partie bi nañu bàyyi tël na damm na dama ne yàpp yëpp buñ meloon nii res semaine du ci am yoon loolu mooy lan mooy dama ne dama ne dama ne président gare routière yi nekk Sénégal wala yi nekk région de Thiès wala yi nekk département de Mbour nañu renouveler man su may wax loolu sama président gare routière bii di Alaaji Damlo taxul may wax ndax man ba ma jógee gànnaar di ñëw ci kippaaram mu ne ma jàngal transport en commun ñu ànd ñaar fukki at yaakaar naa ne amul lenn lu ma desel ba may ñëw fii dégguma wolof dégguma pël ci kippaaram laa nekk lu ma xam ci transport en commun moom ma ko xamal kon moom ci wàllu boppam bu ko neexoon sax du du du def euh, moom Dame Lo bu ko neexoon du jàng oto du dawal oto ndax ay maamam am na luñ ko fàggul bu ko neexoon day jaaxaan rek di laaj adde ñu ko jox loolu ku ko weddi laajal waa Ceytu wala waa Gaawaan la ca dolliku mooy moom ci wàllu boppam man dama ne ña nga xam ne seen mandat jeex na avant euh, mbas mi di ñëw ñooñu wax mais moom ci biir mbas mi ci la mandat jeex mun euh, ci la bëggoon a def ay élection mënu koo def ndax mbas mi kon yaakaar naa ne moom gàcce ngala man daam loo kooku taxul may wax te naa ne balaa yàggati dara euh, mu mu mu mu mu mu organiser ay élection la ca dolliku mooy sëwaru transport en commun yi nañu am fula nañu am fayda képp ku jëlati ab saak di ko teg seen oto xam. Mhm. jërëjëf El Hadj Yankuba Diouf Thiadiaye asalaamaaleykum. waaw léegi salaam sëñ bi man la Momadou Lo maa ngi lay woowee Gobaak ci Kaffrine. Momadou waaw. moo ko ma ma Mad. Mad Madou Lo waaw. maa ngi lay woowee Gobaak ci région Kaffrine waaw euh, fi may commencé mooy euh, ñun waa région Kaffrine. nguur yëfi jaar muy nguuru Senghor eh, eh, ah, Abdoulaye Wade mm, mm, Abdou Diouf mm, Macky Sall ñun da dañuy fàtte parce que Kaffrine benn tànn yi moo fi am muy eh, route nationale bi su ko mooyee li fi nekk ay restaurant la yu ndaw Kaffrine courant tamit ci région courant daf fee manqué te dama gis yeneen région yi nga xamante ni dem naa fi da ngay dem ci dëkk yoo xam ni. ay juróom benn kër ba fukki kër lay doon dëkk yooyu di am courant lan moo tax région Kaffrine ñoom dellu gannaaw ci wàllu courant ak wàllu yoon loolu daal daf ñu jaaxal ñun ñi nga xamante ni ñoo dëkk. Mhm. Mate dafa mel ni dafa am jafe-jafe ci wàllu jokko bi moom Mate Loum foofee ca Kaffrine ñu daal di jël keneen ci 88 628 98 98 asalaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatullah. maa ngi nuyu xaritu Iran moomu Sowét. Mhm. Sud FM. di wax rek ne sant yàlla bu baax gannaaw ne mu suñu jàppale ku dul Idrissa hafizahullah <laughs> picc nag bu làkkee bopp dafay bëgg moroom loolu loola waral yu bare bari kenn ku ci ne war wi nga defoon daaw bëgg nga ko justifier tey loolu dafa war a weesu. réew mi moo war a gënal ñëpp seen bopp lii may wax ni kenn mënuma cee dindi muy le président Idrissa mi nga xamante ne tey moom la ñu woolu woon dem ci opposition ñu woo ko ngir réewam tàllal ko loxo ne ko ñëwal jàpp leen ci réew mi yëkkatiku te ki ko woo mooy seen patron ñooy koy défendre seen patron la ñuy contre ni contre ni di de ndax koo xamante ne mu neex mu naqari ka ko doon woo woo ko ñoo ànd di liggéey yow da ngay jooy di ànd ak moom walla ngay ree di ànd ak moom loola tax noppalu mooy ànd ak moom donc ku mu neex nga ànd ak ka neex mais ba bëggee defar ngir Sénégal il faut que loxo yi jàppoo loolu nag nekkul li sénégalais yi ñenn ñi nga xamante ne ñu ngi taxawee wàll wa te nekkoon nekkoon nooni Idrissa dem ku leen joxoon tey paaka ñu nangu ko rendi ba paaka bi laal peron bi ndax coxor loolu loolu dafa gis nga. soo bàyyi soo bàyyi loolu ay gis-gis yu waroo la rek. foofu noonu gis-gis waroo dina nuroog coxor coxor dañ koy xam. xam nga nag Birahim dama bëgg su may wax. Mhm. sama poos laay waxee. déet déet damay bañ ay noon ak yooyu baat yooyu dañ ko fiy bañ. bu dee loolu aussi laa fi wax. parce que ay affaire u noon ak yooyu kenn noonu fi nit. gis-gis yu waroo la rek. li nga fi yàgg a dégg ëpp na lii may dégg nii gis nga ñun ñaa ngi ñuy déglu mu ngi ñooy déglu ñu ngi lay déglu. bu la neexee it ma coupé parce que bu dee loolu moo lay gënal ma defal la li nga bëgg waaye wax ne rek sama kàddu mooy ñin ñi nañu raxas xol yi ànd nekk benn te liggéey Sénégal loolu la Idrissa wootee loolu la président Macky wootee wasalaamu ala man ittabal huda ñu jaajëfal ko bàyyi kàddu noonu yeeg ak yooyu yëpp dañ ko fi tere wax nañ leen ko du benn du ñaar asalaamaaleykum. Alaaji Birama na nga def. booy sant sant bu baax alhamdulilah. man nag antenne libre bi bu ñëwee damay wax ci sama dëkk rek Malika quoi. Mhm. Birama Malika va mal va très mal quoi vraiment quoi suñu doléance yi ba léegi moom la ñu jot li mooy tali bu bon bi poussière bi te léegi sax dafa am leneen lu ci dolleeku muy mbëbës mbëbës hmm. dolliwaat na fi mu nekk nii saxaar si quoi moo tax ma ni mbas mi moom bis bu fi jógee it yàlla na fi yàlla jógee jàmm waaye waa Malika ñoom bi ñu tàggoog ay masque ko te wala fii dañooy wax ni ku yéeg mën a ku ku mënul yéeg sax war a mën a bës ku daanu mais suñu tali bi lillahi wal rasul yi maire bi nekk fii nañuy may ay camion si tamit duñ ko arrosé suñu saal yàqu na suñu néeg yi yàqu nañ xeeñ saxaar kenn xamul lu muy niroon quoi yàlla xam na hmm. mais ma lay xamal ne aussi suñu marché bi léegi ñu ngi ciy commencé tabax na leen douze mairie armée aussi ñu ngi koy commencé defar laa dégg lañ ma lañ ma téléphoné léegi wax ma ko hmm. mais grâce à Demba Ka quoi bi ñu ko octroyé suñu neuf hectares bazar de ko jox ko ko noonu bon maire boo xamul xamul fu muy teg tànkam moom moo def loolu ba lii dal ñu tey quoi bon Birama hmm. dama la doon benn question quoi boo man ni tàngam yi ngeen xam ni ñoom ngeen di invité ci seen plateau yi les politologues les sociologues la ay boromi xam-xam la wala nekkuñu ay boromi xam-xam parce que man damay dégg à chaque fois bu ngeen leen invité nga ne leen ñu ngi invité diw diw màcc ci xam-xam màcce ci nàngam mais damay dégg bu ñu defee seen i ak seen i ji seen def yëpp ba pare mais da ngay gis ku digg naan bu ay ana politologue li ñuy li ñuy invité ak sociologue yi ñooñu dara la ñu xamul mais loolu benn wax gënu ko. benn wax gënu ko gënu ko gënu koo rafetati mais kooku du yoon mais yow ki nga xam ni yow dafa jàng lii la jàng ci lay teraangaam nekk ci la xam-xamam nekk wax ay analyse ma def ak nga taxaw ni carrément ñu politique des réseaux sociaux li ñuy wax dara la ñu xamul ah mais kooku dafa ëpp wax ci am rajo c'est pas du tout sérieux mais nag li Maodo Faye wax rek am na ñoo xam ne ñi ni seen xel toll noonu la noonu noonu booy Malick mais loolu du yoon mais ce que veut dire man ñooñu sax man ma mais yéen sax la ñuy wax parce que yéen yéenay journaliste yi yéenay invité man damaa yaakaar ni en tant que journaliste du ngeen invité ñoo xam ni amuñu xam-xam. booy Malick ah, mais ah? ne booy Malick waaw xanaa ma dellu la ci waxu maam Cheikh yi ngay jël rek. non non nee na nee na Sénégal weddee fi gën a yomb ñu jàppee ko noonu rek. voilà jërëjëf jërëjëf jërëjëf mais yow ki nga xam ne lii la jàng xam ko di xam-xamam mais yow mi muy élevage su euh, ginaar wala muy élevage su euh, xar wala muy élevage su kii nu mu tuddati wala muy élevage su élevage su nag yow nit dina ñëw nga naan ko bii tulaa la wala bii ëzëwët la wala bii laadum la mu kenn ñoo nañ kooku ñu mën naa taxaw ni li ngay wax dara xamu ko ci. mais nañuy bàyyi loolu lu arrangé wul. ñu daal di ko jaajëfal jël keneen ci 88. lay doon aleykum salaam. El Hadji Birama. Aha Jamil Faye la. Aha Seydi Jamil waaw. laaj Birama may wax ne waa kër Idi ak waa kër Makki buñ ñu wax dara amuñ ñu luñ ñuy wax mbuuru faf ka sëriñ la Makki ak Idi ñoom ñaar doyuñu référence ñun dañ leen a lijjanteetut tooñ nañ askan wi def nañ loo xam ne kenn xamut lu mu doon nañ ñu dimbale bàyyi wax ji ak werante ji te dem liggéeyi réew mi soxlawuñu ñu mel nii li ñu bëgguñ mooy ñoo xam ne dañuy liggéey jëlee ndax Seydi Jamil Faye ca Touba bu mu ne dugg si waat laata ñoo yëkkati jotaayu xibaar yi buum bi dafa dagg moom jël keneen asalaamaaleykum. allo Birama. waaw. waaw man la Anna maa ngi lay ñoo ngi lay fay. may mhm. kuréel bu bees bi président sam Macky Sall ndaw ji lu ko soxal la moo tax mu jox ndigal ministre de l'emploi pour mu taxawal fii ak décembre kuréel boo xam ne fa la ñuy tàggatee ndaw ñi ci ay métiers pour ñu mën a am liggéey. ci noonu nu mu nu mu gën a gaawee Sénégal ñëpp a ci war a jàpp ndax mu jëm kanam Idi dëgg la ni mu demee mais moom am na courage politique dañ koo war a saluer Macky Sall dañ ko war a remercier ci force vive yëpp de la nation yi mu dajale pour liggéey ak ñoom bi ci topp Macky Sall nga recruter jeunes yi amul liggéey dugal leen ci armée bi ci police gendarmerie sécurité du doy mukk armée am na avantage di nga fa amee di nga fa amee métier di nga fa amee xam-xam ñi ci des bu ñu leen tàggatee ba pare ñu tas leen ci entreprise yi ñu dem liggéey na ci waxtaan ak ñi seen xel màcc ci loolu yaatal waxtaan bi te mu am suivi président Macky Sall maa ngi koy ñaan ku mu ku mu jox ku mu dénk kuréel yooyu képp ku mu joxoon responsabilité mu xool ndax kooku mu ngi koy doxal walla déet. parce que am na ñoo xam ne boo leen xasee ba jox responsabilité boo ko xoolu ku leen neex lañu fay recruter seeni mbokk seen i militant bàyyi ñeneen ñi te du lool Macky Sall li mu bëgg moo jiite Sénégalais yëpp kon ñoom ku mu fa teg na nga fa nekkal Sénégalais yëpp maa ngi koy ñaan mu bàyyi ci xel. 6FM seen liggéey rafet na balaa nga koo xam nga génn Sénégal rajo bi rajo bi ñëpp di déglu la ñëpp a ko soxla kenn du leen wax dara ku xëy suba ba ngoon yaa ngi xalaat rajo bi. rajo bi nga ciy déglu ba dimanche émission salsero yi ngeen ñuy tegal ñun dañ koy déglu bu baax a baax kontaan ci dañu bëgg ngeen delloo si ko waat rajo bi am ñu seen fay dañ leen di ñaanal yàlla rek bàyyi leen ak yàlla maa ngi jam jàmm ci réew mi di ko ñaanal président Macky Sall fi nga bëgg eggali réew mi ci lu baax. Mhm. yàlla na ko yàlla. jërëjëf Anna Mendy ca Parcelles Assainies ñu jël keneen ci liñ bi asalaamaaleykum. allo allo asalaamaaleykum. waaleykum salaam. Birame maa ngi lay nuyu di nuyu grand Socé ak Maguette ñu ko namm naa ceebu yàpp. Sud FM joxoon ba di leen ziar bu baax <laughs> loolu mooy neexal fan kii bi quoi rajo bi. Mhm. Birahim yaa ngi may dégg. maa ngi lay dégg kañ maar. <laughs> waaw <laughs> Birahim man li ma jaaxal gis nga dinaa la beneen affaire. Mhm. gis nga fi toll tubaab yi bëgg nañu créé waat ay couvre-feu ci affaire euh, coronavirus bi. di mhm. nga virus bii. buñ ko xoolee ba ci biir. Hmm. la ma waxoon rek moo ci nekkat fiñ toll pare nañ ci seen pikiru vaccin yi ak garab yi te bëgg nañ ko tas ci àdduna bi. léegi il faut ñu indiwaat ne affaire bi jógaat na pour nit ñi ragal mën a daw yu wuy ji docteur yi ñu mën leen ko pikir te pikir yi kenn xamul lan moo ci nekk. Hmm. mën nañ la ko pikir léegi nga wér fii ak 5 xamoo lan lay jur ci sa biir yaram léegi nag dañuy ñaan gouvernement bi nekk Sénégal. na ci def traitation bu baax te yërëm askanam xam ni sénégalais yi amuñu problème yooyu ñu ngi ci jàmm bu ñu musaan feebar dinañ faju ba wertuñu amuñu benn problème affaire corona ak affaire sibiroog yi dama noonu ngir yàlla ak yonent bi nañ ci bàyyi xel ñu bañ a ragalloo nit ñi ba nit ñi dem di jël vaccin boobu parce que kenn xamul ndax baax na wala baaxul réew mi ñu nekk ñu bëree nga fi justement nit ñu ñuul yi koo wax moon ko gannaaw amul kenn koo xamante ne bëgg na koo def kan Macky Sall na ci jàpp bu baax te yàlla tax te yërëm askan wi si may daanee la mooy. Hmm. Sénégal xale yëpp am nañu xam-xamul liggéey. Macky Sall yàgg na leen a dikk cinq cent mille employés waxoon na ko fi mujjul fenn secteur informel baa ngi nii lépp a dee nit ñëpp a sonn kenn amul dara dara dara Sénégal dafa métti bu du woon moo di nekk ci diaspora bi war na yàlla dina gën a métti biraam Macky na yërëm askan wi. jërëjëf Mar woote ca Amérique ñu daal di jël keneen asalaamaaleykum. allo. asalaamaaleykum. maaleykum salaam sëñ bi na def. sant bu baax alhamdulilah. waaw man monsieur Guèye laa tudd maa ngi woote fii Liberté 6. ma ne eh, waaw. man daal euh, euh, euh, Sénégal war nañu dimbale temps yi. Hmm. xam nga courant surpresseur yi nga xam ne mooy mooy mooy mooy yéegal ndox yi ci immeuble yi. Mm-hmm. dañ dëkk ci immeuble boo xam ne dafa am six appartement six xaw ma set bu njëkk dañ naan def courant dix mille francs def ñu naan yóbbu un mois maintenant léegi waxuma la sax dix mille boo ci defee dix mille ay dix jours la yóbbu boo ci defee cinq mille alors mu defal la cinq jour courant bi ni ko yokkee ci surpresseurs yi dafa métti fi mu nekk nit ñaa ngi bëgg a dee bon ça c'est un deux li may wax nag leneen li mi ngi jëm ci euh, CNG euh, làmb ji xam nga CNG bi fi jógee euh, mbëri bu ñu leen daggaan xaalis boobu ñu leen di dagg warul wa warul dem ci keesu CNG bi mais dafa war a dem ci promoteur bi nga xam ne moom moo def xaalisam ci làmb ji làmb ji bu yàqoo moom la yàqul te moom moo organisé donc xaalis boobu ñu dagg ci mbër yi du xaalisu CNG waruñ CNG waru ko jël di ko waru ko jël dugal ko ci keesam mais daf ko war a jël jox ko promoteur bi voilà merci beaucoup jërëjëf. jërëjëf jërëjëf monsieur Dieye foofee ca Liberté 6 ñu jël keneen ci 88 628 98 98 asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. sëñ bi noo tudd ak fooy woote. monsieur Birima. Mhm, Diop. Diop na nga def. sant bu baax alhamdulilah. di la nuyu di nuyu waa groupe bi. ñëpp a ngi lay fay. di wax ne rek monsieur Birima ñun ñuy woote bitim réew ñenn ñi ñuy woote bitim réew doon laa mën a wax sax ñun daal dañoo euh, am nattu daal. ndax woote bi ñuy woote rien que pour suñu réew tegu ci yoon mais dafa mel ni Sénégalais yi loolu bëgguñu daal réew mi tegu ci yoon dafa mel ni ku leen di nax daal ku leen dul wax dëgg ku leen di nax kuy sàcc seen alal dafa mel ni njuuj njaajkat yooyu daal la ñu bëgg quoi parce que euh, boo gisee li xew ci Sénégal ñenn ñi di ko bëgg euh, légaliser man daf may jaaxal quoi te suñu xam-xam xam bariwul mais dégg nañ ci yonent bi biñ ko laaj lan la jullit dul def am na luñ ko laaj lu bari mu ne jullit mën na ko def mais bañ ko ne jullit tax dina fen mu ne jullit du fen yaakaar naa ni ku wax ne dinaa def nangam duma wala duma ma sa def nangam wàññeekuwaat def ko ah loolu defe naa lu méngóol ak dëgg la kooku nag boo bu bëggee ne homme d'état la man mënumaa gëm ne homme d'état nga homme d'état day wax dëgg te doo sàccalul réew mi te dinga nga diggéey di nga diggéey réew mi kon li xew ci diggante eh, Macky Sall ak Idrissa Seck dil la pour man dil laa ko mën a jàppe parce que ñu ngi nax sénégalais yi duñ leen wax dëgg ñu ngi sàcc seen alal di def loo xamante ne xale yaa ngi nii mënuñoo am liggéey ndax ñoom donc euh, na sénégalais yi am fulla am fayda xam ne ñii dañuy nax parce que dil boo xamante ne la boo xamante am na yeneen yoo xam ne mi ngi ñëw ci kanam parce que man dil bi épargne mu ci waa euh, PDS ak Abdoulaye Wade donc il faut sénégal Sénégalais am fulla bu ñu taxee naan Idriss Seck dafa ñëw pour liggéey Idriss Seck ñëwul pour liggéey dafa ñëw pour baajoo da dafa bokk ci dil bi te am na yenn yoo xam ne ci kanam lay lay feeñ cinq cent mille emploi lañu Macky Sall di diggoon ci premier mandat sottiwul mu jigaat ñu un million d' emploi jëmaguñu fenn xale yi commencé dem di jël géej gi di dee kon nga xam ne ne li ñu waxoon teguñu ko fenn njuut njaaj lañ nar a yor réew mi léegi nag Sénégal yi ñoo war a taxaw pour ñu changer bi système bi mooy suñu problème parce que nous nous avons un système politico religieux lobby boo xamante ne lobby politico religieux boo xamante ne moo ngànk réew mi loolu la ñu war a xeex ñu jële mais Idriss Seck xam nga ne moos fii ba 2024 du fi liggéeyal réew mi dara dafa paajoo ci dong télé boo dem na gaay ndaa nga fa jëfur di naan di ko jéem a défendre mais lañ wàcc woon démb bëgg ko lekk tey Sénégal yi xam nga duñ mën duñ ci mën a àndal lu mu araamoon démb mën ta dagan ren nañu bàyyi Sénégalais am fulla am fayda jëlee fi ñii jërëjëf jërëjëf Jóoboote ca Italie ñu daal di jël keneen asalaamaaleykum. aleykum salaam. Mhm. alaaji Birama. waaw. kii alaaji Xaaya Gueye la. alaaji Xaaya waaw. maa ngi lay ziar di ziar waa Sud FM yëpp. ñëpp a lay fay. génn suñu xalaat. man de li may tey <clears throat> mooy euh, gërëm président Macky Sall ci dem gi mu dem Touba dem yóbbu ma cinquante millions pour jàppale jox ko ministre de l'intérieur bii jox ko ña nga xamante ne ñoo nekk Touba. am ay lakk-lakk foofu seen i magasin lakk mu doon defal ñu ko dépense en attendant ñu xool affaire yi loolu lu am solo la beneen bi may kii xale yi dem ci géej gi nañ fàttaliku xam ni ñu wax leen bu ñu leen di wax ñu wax leen am nay sénégalais yu nekk ci réew mi dëkk ci réew mi takke ci réew mi tekkee ci réew mi boo ci dee xool di nga gis ku mel ni Serigne Mboup CCBM e di nga gis ku mel ni Mbaye Gueye EMG di nga gis ku mel ni Demba Ka di gis ku mel ni Cheikh Seye Amadou Cheikh Seye Touba Gall tant d'autres boo ko topp doo dem daara géej këriñ éwal boo doon topp doo boo ko doon jeexal doo dem ñu xam ne ñooñu ci réew mi lañ jógee ci réew mi lañ jànge ñu njëpp sax doomi daara lañ ci daara ji lañ xamee jàng ci réew mi kon réew mën nga fee takkate keefi ñu jàpp ko te bàyyi gaal gi xam ni toog ci réew mën naa am te programme président bi jëm cee dem leen ab teen mooy état teen lañ ko fekkaa du fekk kenn nañ dem ci programme état bi xool bind ci man cee fexe li leen financé ak ñu leen di formé ñu dem formé ci beneen wax ci géej gi ñu bari xamuñ ci lu bari jamono jii géejug Sénégal naka jekk weer yi ñu ne ak jamono ji ne daan tëj service de pêche bi sax day topp usine yi ñu defaraat seeni pêche te jamono yi ci ginnaaw keesug yabay doon nga ko am téeméer te fi ne boo ko bëggoon di nga ko jënde fukki junni loolu yàgg naa am beneen bet bu ñu bëggee xam ba xam géej gi jaay nañ nañ dem xool service de la pêche yi géejug Sénégal boo deman tey jii xool cent vingt licence jaay nañ jox nañ koy Sénégal ñoo xam ay bateau de pêche lañu am fii ñuy liggéey ci réew mi ci defem nag sunu ci defem la bu fi nit du woowee borom xam-xam man de wax dëgg yàlla mu wax am la sama xalaat dinaa wax sama xalaat ndax am na ñoom am na ñoom président Macky Sall te mooy président tout le Sénégal ëpp leen xam-xam te dafa pare ñu ne am na ñoom moom kon kay ku fi nag ñu nga nekk ci commune maire ba ñu fal ko faluñu la ngay xëy di ko sànni xeer ak di takkali loolu ci réew mi doon fekk kon nañu defe soo mu fay reet ci morom ci ñu jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98 asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. <coughs> Mhm. waaw. waaw man la Mamadou Médor. Médor waaw di waa Sud FM ñi nga bokk liggéey bi ñëpp. Mhm. di yéen jàmm di ñaan jàmm rek di nuyu sama mbokk farandooy euh, alliance pour la république wax euh, sa xalaat ak nga xam ni ci communication bi ñoom Seydou Gueye waaw man daal li nga xam dama ko ci wax mooy gis nga président Macky Sall fi mu toll dafa li mu wootee jaloog bi am na ñuy ñëw wuyu ko am na ñoo xam ne nag euh, wax nañu mais ñëwuñu woon ci ci ci ci ñi nga xam ne ñoom la doon dalal ci palais bi te d'accord nañ ci ñu mel ni Seck ak euh, ñi nga xamante ni bi ñenn ci ñi nga xamante ni bi euh, ci waa PDS ñu mel ni ñoom Omar Sarr ak ñeneen mhm. Médor dafa mel ni aha dafa am jafe-jafe ci jokko bi wala dafa tag ñu jël keneen ci 88 lay doon uit 628 98 98. salaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam. El Hadj Birama. waaw. damaa bëgg a wax ne président Macky ak Idrissa dañoo nekk ñoo xam ne jëratuñ sax ci teg ci antenne di wax parce que dañoo wor askanu Sénégal bu fekkee ñii lañ yaakaar ñu yóbbu réew mi fa mu jëm. réew mi waajagut a dem te demagut parce que mag yi li tax ñu xam ne dafay naxe mooy poste bii mu jox it am nañu ko gën a yolee ci ay nitam te joxu leen ko moo tax sax boo seetloo waa APR ñu ngi commencé siisant ci seen biir ñu ngi ñu ngi koy commencé siis idi it la mu waxoon génnee lu ne mu wax ko wane ne kii di Macky Sall daanaka ci ay caaxaan la ne liggéeyut day nax askan wi dara baaxut ci liggéey bi baaxut mu wëlbatiku dem àndaat ak ñoom moo lay won ne intérêt wu Sénégal taxu ko a jóg intérêt boppam nguur a ko président Macky ak Idrissa laa ne jërëtul sax ñuy nekk fii di wax seen i wax parce que ñun amatu ci ñoom yaakaar ndaw ñaa ngi dee gis nga lii xew di xew ak a xewaat kenn xamul lu mu doon léegi nag loolu ginnaaw dem nañ ba xam ne ñii moom intérêt askan wi taxu leen woon di jóg seen intérêt bopp moo leen tax a jóg ñun ñun ñooy jëlaat suñu matuwaay mu neex mu naqari 2024 Macky ak ñi mu àndal lépp danañ leen fi jële fexe feet ak ñeneen ñu jub ñoo xam ne nii askan wi rek a leen di et quelque ñoo faatu cinq cent yu tuuti ñoo faatu ci biir ndox mi la leen naqari mooy seen président ak ministère yeeg député yi ñu fi teg kenn xamut li ñuy doxal ci ay ci caaxaan rek lañ ne amuñu fulla amuñu fayda ñu leen wooloo ba war leen ba jox leen pour ñu liggéeyal ñu réew mi daanaka mën naa ne defuñ ci dara tey dañuy dajale ay milliards di leen ko jox buñ fi nekkee naan ñi idi kii naan makki ñuy tulli kii di mbabas fii ñii dañoo tax a jóg ñii wax seeni wax sax da koo jëratut su ma sañoon sax lu passé tey ku mel ni makki donte suñ président la kenn du waxati ci moom ku mel ni Idi jaratul sax wax ci ñoom ñii di xalam yu kenn xamut yéen ñuy wax nii seen intérêt lañ bokk ñooy bokk groupe ñooy ànd jiwaat bu yeboo ñuy waxante jàmm waa Macky ak waa mille ànduwaat 2024 xeexaat pour wutal Macky deux troisième mandat bu yeboo ñu yéenante jàmm. jërëjëf Seydi Djamil Faye foofee ca Touba ñu daal di jël keneen ci liñ bi asalaamaaleykum. salaamaaleykum. waaleykum salaam. waxal ak kooku. Gora. waaw Birama. ma ne waxal ak kooku waay. Gora Baye Fall personne la di woote Diourbel. salaamaaleykum Birama maaleykum salaam maa ngi lay dégg Gora waaw. waaw ñu ngi ñuy ñëpp di mhm. si ñu nekk. Euh, di wax ne rek ñu ñu doolee ñaan jàmm rek euh, ci réew mi te yéenante jàmm ndax jàmm ci la lépp xaj te jàmm gën jàmmaarloo te ko it moo gën faj. yaakaar naa jekki naan président Macky Sall liggéeyul dara ci réew mi wala liggéeyu fi dara lu baax moom loolu moom day <laughs> yaakaar naa ni day nuyu yéen wala la ne waaw li mu fi def moom ci jurbel gi may yeewoo laa koy tàmbalee waaw ci jur gi bii nii laa koy tàmbalee ndax jam toll na jamono boo jógee cinquante rek jëm kër seega da ngay fay deux mille francs euro pour mu mën a yóbbu da ngay def ci yoon wi temps boo xam ne doo xam ne mu toll euh, loolu ci président Macky Sall ñu tali bi Diourbel samp ay làmp ak yeneen ak yeneen mu def ko ci yeneen communes yi waaw euh, yoonu mbind wi ba ci ilaatu waa ba ñu defar ko defar yoonu jaxaw euh, defar ay tali gusaas defar ko fu baree baree baree bari boole ceeg nag euh, financement yi muy kii waaw ma koy wax nag ñu mu jàppale Diourbel ci luuma yeeg ñooñu ñu leen ci am na ci solo waaye président moom liggéeyal askan wi rek moo ko ñor amaa nag ñu doon wax naa kàddu la ñuy kàddu nit kàddu ñooñu moom mënuñoo ñàkk seppi soppi seppi seen i wax ndax bu fekkee ne dana nekk ci ginnaaw Idrissa Seck mu ne duutu fas yéenee def nangam ak nangam ak di saboot liggéeyam président Macky Sall ba tey mu ànd ak moom la mu gënoon a bañ wala la mu gënoon nii moo gën a ñàkk njariñ ñu fal ko ko mu jiite ko ko tey kon day man li ma jàpp ne li muy tekki rek mooy da doon saboote rek ndax politique Sénégal mooy ko àndulul da saboote lu mu def nga ne baaxul loolu foofu la taxawoon rek waaye comme dem na ba xam ne lii président Macky Sall di def baax na te egg askan wi ànd nañoo ak moom te ku àndut ak moom da ngay perte kon bu ñuy ànd ak moom dañ ko ciy saluer rek loolu dong la kon waxi waxi démbam bu dañee tey noonu lañ koy gisee rek politiciens yi fi nekk yëpp dañuy jàpp ni yàgg yàgg ku ci àndul ak moom say wax dana mos a dañ rek parce que Macky Sall ci yoon bu baax la tegu te askan wi xam nañ ko kilifa yi yëpp xam nañ ko loolu nag moo am solo ci liggéeyal réew mi ba réew mi mën cee gis seen bopp gerte bi traite bi taxaw na ñu ngi ñaan opérateurs yi ñu góorgóorlu wàññi ci ñuy def ci suuf te jàppale baykat yi bañ a am ay ba yenn booy mu impayé parce que président boole na leen ak ay banques yoo xamante ni bii war nañu mën a jàppale askan wi ci li ñuy def ba benn bor du ci am. am na fii ay bor yoo xamante ni bii yu ñu fi amee loon ay deux mille cinq di yoon ay baykat yoo xam ne ba léegi. Birame Talla Xadim Birama. Mm-hmm. allo. Mm-hmm. maa ngi lay dégg waaw. waaw waaw waaw kii bi day feebal ba doo dégg mm-hmm, léeg-léeg mm-hmm, waaye loolu day day am solo daal ñoo xam ni président daal day liggéeyal askan yi di di ko di ko di ko saluer te di ko soññ nag bu baax a baax ndax askan yi moom am réew moo dul yegg comme moom réew di yegg nag da ngay tabax foo yem rek bu keneen nii tàmbalee foofu jëm ko ca kaw moom nag moo mën fi jiitu te xam naa ni ñi ñëw ëllëg yàlla nañu mën a da yàlla nañu ko mën a dab ci njàmbaar seen di ba ci communication si liggéey mm-hmm. hmm? jërëjëf jërëjëf Gora Baye Fall kër kër Sega ñu daal di jël keneen asalaamaaleykum. waaleykum salaam Birama. waaw. nuyu naa la nuyu sa équipe technique. ñoo ngi lay fay. baal ñëpp ak tey baal ñëpp ak. Mhm. ma daal su ma sañoon Sénégal dispositif bi ñu fi tegoon en 2008 bi mbëkk mi amee. ak waa Frontex dispositif boobu ñu gën ko renforcer waat. ndax en 2008 dispositif bi ñu tegoon ak Frontex. amuloon benn départ boo xam ne doon na am fii ci waaxi Sénégal départ bu fa masaan am rek c'est en dehors de Sénégal comme président Macky Sall bi mu ñëwee dem na ba doté Sénégal de patrouilleurs ñu dem bay ay ay bateau fii ci géej gi kon dispositif boobu nang ko renforcer waat ak ces patrouilleurs ba bañ a permettre benn gaal mu départ fii di di def mbëkk mi pour xale yi di pour di dem et bu ñu jógee foofu aussi sensibiliser xale yi xamal leen ne tukki dafa dagan fu waay bëgg dem man nga fa war a dem mais à condition nga dem demander sa visa ñu may la ñu xamal leen ne géej gi képp ku ci jaar li sëñ Bass Abdou Khadir wax mooy dëgg wax na ko nag am na ñu koy critiquer fii ba am ñoo xaman ñu ngi tontu ñoo ñu leen di taxé de n'importe qui muy El Hadj Gora Ndiaye moom lu nekk wax na ko fi te loolu mu wax dëgg la ku bañ ñu wax la dara wala ñu bañ la tontu la tontu mu ñàkk bu laal sëriñu jàmbur kon sëriñ si ñuy critiquer ci rajo yi nan ko bàyyi. ku ko fi bàyyiwul aussi ku fi laal sëriñu jë nit lu la loo dégg yow yaa ko teg sa bopp loolu nañ ci bàyyi xel loolu bu fekkee moom mooy yàq rajo ma xam ne ko rajo bi dana yàqu war nañ bàyyi sëriñ si en paix heure bu Sénégal amee jafe-jafe wala am problème on fait recours au marabout ba pare bu sëriñ si waxee ñu bëgg di leen critiquer di leen xasal di leen saaga au nom de quoi loolu fa lan lan na lan na nag kon ñu ko ne di sensibiliser xale yi ne leen ne mbëkk mi du solution c'est pas solution nan leen sensibiliser aussi amagul benn dëkk fii ci àdduna boo xamante ni réglé na problème mu chômage am Macky président bu dee da ko mën na ko réglé munu ko réglé keneen ku nekk ci biti bu waxee ne bu ngeen ma falee président ma réglé ko dana dana dana munu ko réglé aucun pays n'a pas encore gagné la bataille pour l'emploi nan ci bàyyi xel mais teewul nag mën nan mën nan dégg maam asseoir des politiques pour faire face à ce fléau loolu c'est possible na ñuy waxee noonu waaye problème bu am Sénégal bu ñu ko bëggee def na problème politique boo ko résoudre politiquement solution du mas a am moo tax toujours duñ taxali ko ay problème yow yow Birama Dia hmm. lu am rek ñu daal koy bëgg a régler politiquement wala euh, nase ko politiquement moo tax Sénégal du taxtalikoo ak politique su problème national amee hmm. nan koy régler jërëjëf hmm, euh, jërëjëf jërëjëf Alaaji Boy ñu daal di jël keneen ci 88 lay doon 628 98 98 asalaamaaleykum waaleykum salaam aha sëñ bi Alaaji Birama waaw alaaji xaas mbay la mbàkke bool alaaji xaas waaw ñoo ngi lay siyaare di di jaajëfal alaaji booy jow moom loolu wax mm. am na solo lool waxal ñi ci sa ginnaaw man dama koy gën a rafetlu parce que mënuma comprendre sëriñu kilifa diine yi ku jaaxle na kilifa yi wax suñ waxee ñu naan sëñ bi woote wax nangam gis nga ñun suñu suñ suñ culture ak suñ aada amul sëñ bi wax ba pare nga ne sëñ bi woote wax nangam kooku du taalibi du yar ay nangam numéro deux ay numéro deux loolu du yar bi teggin beneen bi ci def gis ba Ndebes gii ñu wax nii yow Birama. Hmm. mbalit ma fa nekk. wallaahi la si moo gën an tamit stratégie yi ñu jël teg ko ci kaw kër yi te lool seen njëriñ moo ci nekk ñu ko wax te loolu li muy feebar bi muy jox ci nit ñi moo ëpp doole lool kon ah, mbalit yàlla xam ne moo gën loolu. beneen bi ci def mooy li may wax toujours li xew Touba Idriss Seck ni ñëw feeñ ci parce que waa Touba moom carte seen carte yëpp Idriss sekk lañ ko wooteel kon président Macky ñu ngi koy ndokkeel. Idrissa Seck mi génn xaaj ba waa Touba marché Ocass ge dana def ay neuf nangam millions di ko campagnal di ko mitinal kon bu lakkee na ñëw kii mën a ree rek taxul ñu fal ko na ñëw am njëriñ ñëw ci dëkk bi di ñaanal Pape Moustapha Diop fii ci Mbacke wala asalaamaaleykum taala wa barakatu jërë ngeen jëf mbokki yi fii la ñu yem ak yéen yëkkati jotaayu xibaar yi sant leen gërëm leen gërëm bu baax Aline Badara soo semi feetoon ci xarala gi lu yees ñaari simili kii lee di Marie Rosalie Ndiaye ñëw ak ci xibaar yi ci yàttal ci français lay doon